الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسانو فيدو بي تي بي جسانو فيدو نيو نيو تي لم وح شيخ تيجان تما جيس مالرزمان أم نسخ أي طالب تيجان يو خمني نيو جيل وح جيلي كو بارتاجي كونتان مين نيو خمان تيني مين نيو خمان تيني وح جيل فلينا فلينا آغان جيل نيخ ألو نين دقلو نين دقلو لم وح شيخ رضي الله عنه أبرو نيو جيما خول إن شاء الله لينشي منو كومنتر pour ñu ñu ñu parce que japp nañ wax jooju lu ama am solo la euh, mais malheureusement ñi tontu wala ñi ma dégg ñu tontu ko ñep dañu fleurer ki bi rek jàll soit par émotion lañ ko tonté soit par ki ñak xam mais wax ju wax ju extrêmement grave la qu'est-ce qu'il a dit ana ana wax ji fu mu tollati voilà. nañu nañu nañu won ñu permettre ñu def ak mom débat ci ben télé ci télé débat bi du saaga ak xaste de ci xam-xamu xadis ñu jël ay xadis yoo xam ne moom da ko dal ne wérul ci Buxaari wala ci muslim man pare naa maa ngi wax sama kàddu ku ko mën a dégg mooy xam chaîne de télé yi mën a doon loo xam ne musuma ko def te du ma ko def sama ndax doxalin ndax teguma sama bopp fenn jàppewu ma sama bopp lenn jàmm bu doyee di sama xam-xam bariwul mais wallahi pare naa pour wuññi ay awraam ci kanamu sénégalais yi ñu jël benn téere ci ñaari téere yooyu teg ko ci débat boo xam ne bu neutre lay doon fu neex ñu toog mu prouver li muy wax ne li ca nekk du waxu yonante bi alayhi salaam du dëgg mu indi mu indi ay firnde ñëpp gis ne li muy wax ay kàcc la moom mooy kàcckat bu mag bi du Buxaari ndax li muy wax xamu ko maîtriser wu ko nañ ko def beneen bi ci des mooy bu loolu mënul nekk nañu may benn émission boo xam ne dañ koy defal sénégalais yi expliquer leen ci lan mooy xam-xamu xadis ñu def ko mu nekk luy répété wu chaque mois wala chaque semaine ñu def tableau di afficher sénégalais yi xam-xamu hadith fan la commencé ak ay branche am yi ma doon lim sànq ci ilmul jarh wa taadil ilmu ruwat ci ilmu taxrij ilmul ilal ilmul qawaid ci ilmul naqd yooyu yëpp ay xeeti xam-xam yoo xam ne benn bu ci nekk xam-xam à part la boo da nga leen di boole pour nit ki mën a am lu mu xam ci hadith pour mën a jàngat hadith càmbar ko ba ni li wér na wala wérul wax ci téere yi nga xam ne taalif nañ ko ci loolu benn branche bu nekk lañ ca taalif ci ay téere muy ay bibliothèque yi bibliothèque ay junni junni téere ñu wax ko ci fànn bi ñu ko taalifee ak ñu ko taalifee ba mu agsi suñu jamono ji ñu ciy jot loolu du waxu ko ku xëy xëy rek yeewoo ci ay nelaw naan yonent yàlla bi nee na te yow yaa ngi saaga saxaab ñoo ñu jàngee xam-xam bi ci saxaaba yi te bu nit ñëwee fii lekk ay cereem ba suur yeewu ne moo gis yonent bi mu jox ko wér de sàngam nga jël ko di ko def di ko dégle voilà yaakaar naa li mooy li mooy li ëpp solo ci wax ji lim lim jot a wax ak tag yi moom lañ doon wax sànq ba léegi défi bi mu lancé nag euh, sëñ Abdou Khadir gis naa la Sunugal 24 soo ko bëggee suba suba bu dee ñoom danañ d'accord euh, waxuma la Sunugal 24 kese sax waaye bépp télé bépp rajo bépp sit internet bépp chaîne YouTube fu ñu ko bëggee bu ñu ko bëggee ma dem ñu dem ci seen centre ba ñu dem ci seen centre ba ñoom ci centre Ibadu ñu defee foofu débat bi. jaam bu xeebu bi nee na leen lu ñu bëgg ci wàllu xam-xamu xadis pour wane ne ñoom ñoo nekk ci dëgg wala ñoom ñoo xam dara nañ ñëw. ay bêtises intellectuelles la ñuy wax saay bu ñu ko bëggee li ko daggee suba ci dimanche bi nag ba ilaa yawmil qiyaamati ba tant que ñu ngi am nooyi le défi est accepté euh, léegi nee na Cheikhu Tidiane tuddut Cheikhu Tidiane directement waaye insinué na loo xamante ne ku ko dégg dina xam ne dafa am ku muy gaaruwaale que ne bu nit ñëwee ne la lekk ay cereem ba mu kii mu nelaw ba gént jug ne la euh, man maa gis yonentu bi mu jox ma nangam day ñëw jox la. ay wér da nga di ko def fi problème bi nekk mooy xelante woon ñu am jot pour topp seen wax yi benn benn ndax ñoom dañuy wax rek di sànni te li ñuy wax yëpp am na loo xamante ne boo ko tojee ci xam-xam ni ñuy gis ne yi dof la doon wax palaasu gént ci lislaam makaanatu ruya fi lislaam palaasu gént ndax gént mbir la moo xamante ne man su ma géntee ak yow nga gént ak sëriñ diw gént wala wàllu yàlla diw gént rek benn palaas la am déedéet malheureusement nag gàtt xam-xam dana waral léeg-léeg nit ki weddi loo xamante ne diine saxal na ko yàlla saxal ko boo duggee ci alxuraan di nga gis ay mbir yu baree bari yoo xamante ne yàlla saxal na ko te la jaar di nga gis ay digle yu baree bari yoo xam ne yàlla digle na ko ci ci gént la jaar waaye dinga gis sax ay projet de société yoo xam ne yàlla teg na ko tegloo teg eh, teg ko jaam yi ñu tegoo ko te ci gént la jaar je donne juste des exemples premièrement ab yonentu yàlla xamee na ne moom yonentu lay doon à travers gént dellu ci suratu yusuf bi mu géntee yaa abati inni raaytu ahada achara kawkaban wa shamsa wal qamara raaytuhum li saajidin qaala yaa bunayya laa taqsus ruyaaka ala ixwatika fa yakiidu laka kayda inna sheytaana lil insaani aduwun mubin <clears throat> wa kadalika yajtabika rabbuka ba bam jeex kon yonentu yàlla yusufa bi muy nekk xale ci gént la xamee ni moom yonentu lay doon boo ko dàqee boo bëggee dàq Cheikhu yi te Cheikhu Tidiane waxut gént moom Cheikhu Tidiane yaqazatan la wax maanaam dafa gis yonentu ci lu du nelaw waaye même bu ñu considéré entre parenthèse que ne Cheikhu gént la wax boo bëggee dàq géntu Cheikhu Tidiane bi dàqal géntu yonentu yàlla yusufa bi ba pare kon fu yonentu yàlla fa mën a jaar ba xamee ne moom yonentu la à travers gént Cheikhu Tidiane mën na faa jaar ba xam ne moom wàlliyu yàlla la xut bu zaman la à travers gént boo dàqee bii di ñu wax ci ban dalil nga ko dàqee boo ñu dàqal nga ñu dàq loola bële ci même dalil boobu noonu exemple bon lii xëy na c'est juste pour pour pour rigoler dafa am kenn ci mbokk yi ci ñoom la bokk muy jaawar xam naa ñoom Modou Mbacke Touré ñu ngi fi xam nañ ko jaawara benn waay la boo xamante ne yaakaar naa saraxule la déggul olof déggul arab déggul dara dafa bëgg débat nag bëgg waxtaan ci xam-xam ndeysaan yaakaar naa ay deux mille deux mille dix huit la wala deux mille dix sept ñu doon waxtaan ci benn groupe di wax ci wàllu Cheikhu Tidiane ak gis yonent bi ak nangam ak nangam comme dafa contre Cheikhu Tidiane mu ne daf may attaqué ci loolu mu ne ma mu ne nañ ko indil lan mooy firnde ne Cheikhu Tidiane gis na yonent bi. lan mooy firnde ne Cheikhu Tijaan gis na yonent bi amuñu benn firnde buy wane ne Cheikhu Tijaan gis na yonent bi dafa nelaw ba yeewu rek ni Cheikh ni gis na yonentu lan moo koy firnde kan moo ko fekkee nga waxu xam tontu xam moo koy tontu waaye waxu ñàkk teggin tontu réew tontu réewande mën na koo tontu comme dañoo jaar daara am nañ tuuti ci caay-caayu taalibe daara bi mu laajee loolu ma ne ko jaawara sa yaay ga nekk dina génnootu lan mooy firnde ne sa baay moo ko ëmbal mu jug la amuñ ci benn dalil dafa xëy rek ñëw ak biiram ne sa baay moo ko ëmbal ñu gëm ko boo ñu indilee dalil que ne sa baay moo ëmbal sa yaay mu jug la ñu indilee dalil ci ne Cheikh Tidiane gis na yonent bi ak kan moo ko fekkee dama ku ko wax ci la pare ci wax ji te boobu la gëj a débat ak man jour boobu la gëj a wax ak man mais bon c' est juste pour pour wan leen ne waxu xam-xam xam-xam mën na koo tontu waxu ñàkk teggin ñàkk teggin mën na koo tontu ak ak yebaate ndax itam nit ci waroo def sa bopp ku ñàkk fayda ba ku jug yab la maa ngi jégalu ci kàddu yi bu fekkee diis na mais c'est juste pour kii donc Mor Kébé <clears throat> même bu ñu considéré ni Cheikh Tidiane gént la gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab yonentu yàlla gis na ci gént mu xamee ci ne moom yonentu la jaawara depuis jour boobu noonu ci la ma bàyyi wax Cheikh Baye Cheikhu Baye la may wax. moom Cheikhu Baye la doon wax sa aslan waaye jour wala bàyyee tudd sama tur ci la pare ci wax ji indil ma dalil buy wane ne Cheikh Tidiane moo gis na ne ma ne ko indil ma dalil buy wane ne sa baay moo ëmbal sa yaay yebaate dafa bëri ay façon te ñoom ci lañ nekk donc des fois il faut nga wan leen mën nga sol même tànk tubay ak ñoom pour ñu mën naa respecter bu dul loolu dañ lay fontoo te fii kekk la nen du fi kii ñaareel bi mooy ñaareel bi mooy ci biir alxuraan ci biir alxuraan di nga gis projet de société lëmb comme ni ma ko waxee boo xam ne yàlla ci gént la ko jaarale dellu ci suratu Yusuf ba léegi. دلو تي سورة يوسف بليك بورو بور إيجيبت بي وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لألي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون بور إيجيبت تي جنت لجيسي لو خمانتيني ني يونتو يالا يوسف داف كوي فيريل دوران 14 ans ñu nek di appliquer politique bobu nonou قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فزروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع جاف يا كنا ما قدمتم الا قليلا ما تحصون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس فيه ياسرون اك يمل نون بايه بجيخ دونك بور ايجيبت تي 14 ans يم نغور ييب تي غنت لا نكو تك بو خامتيني تي لاكو يوني موم موم لاكو يونت يالا يسو فيري لولو نياريل لا كون ديكيتي غنت القران تبخنا تي بروجي دو سوسيتي bu doxal une civilisation tout entière bu melni Égypte ci jamono joju ñettel bi bo ñewé ci sourate Yusuf ba légui ginnaw bi lépp maté nguur gi mat daraja ji mat yoon prophétie bi mat lan la yonentu yàlla Yusuf wax قال يا abati هذا تأويل ruyaaya من قبل قد جعلها ربي حقا وقد qad بي bi أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بآية albadwi yow sama baay lii mooy firi sama gént ga ma géntoon yàlla dëggal na ko kon ndekete ñàkk xam la ak yabaate tax nga naan nit dafa lekk cere ba mu neex ko mu gént ñëw ne yonent bi moom ma jox wér de sàngam même bu fekkoon loolu la Cheikhu Tidiane wax mënees na koo jël te dara du ko teggi mënoo koo teggi ci xam-xam moom en tout cas xanaa ci sa réewande ak sa ñàkk xam comme ni nga xamee ne noonu la yéeféeru màkk yi doon def ba yonent bi ñëwee ne leen moom yonentu la bu yàlla yónni ne ko ekati sa ben tank bi mu ekati ñu ne ko yëkkati beneen bi mu ne leen damay daanu ñoo ko ku mënta ekati ñaari tank mi naka lako yalla yàlla yoni waxi dof yoy bu fekke fofu kese la mën nga weddi gentu cheikhou Tidiane bu fekke du fofu nak mom tank mënoo weddi alcorane mënoo weddi gentu benn nitu sa ka cheikhou Tidiane bi ci top moy ci bir suratu Yusuf ba legi bi yonentu yalla Yusuf duggé ci bir kasso bi ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويلي إنا نراك من المحسنين نياري نياري جن يمو mu fekkandoo كبير biir كان لكي جنت نانغم كان لكي جنت نانغم نيو ñu laaj ko yonentu yàlla Yuusuf mu firil leen ko te firil boobu noonu ci la yàlla jaaree plus tard pour génnee yonentu yàlla Yuusuf ci kaso bi ci la jaaree pour def ko mu nekk conseiller principal bu buur bi ci la jaaree pour def ko mu nekk premier ministre bu ci firi gént ci firi kon ñàkk xam mooy waral <coughs> ñàkk dégg alxuraan mooy waral ngay weddi gént bo xamante ne saxal nako dafa am ñuy signaler son bi encore bu fekkee son bi dafa suufee ngeen wax ma s'il vous plaît euh bi ci top nga xam danaka daanaka na ci ñenn ci ñu tontu sax wax nañ ko moy ponk ci diine ji amna na ponk ci diine ji lëmb bo xamante ci gént la sa la sosoo muy aj ak tabaski bon tabaski tabaski plus précisément tabaski ci gént la sosoo فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يننتو يا الله إبراهيم جنت دي تر دومم دي رندي بيم قيسو با واخو نلي أي جنت لما لك تشرب سوق waxul ne lii ay gént la damaa naan kafe bu neex daf ko ne damaa gént di la tër di reen di loo ci xalaat mu ne ko defal li la yàlla digal kon ñoom yonentu yi ñoom gëmoon nañ ne gëmoon nañ ne gént ndigalu yàlla mën na cee jaar yow Mor Kébé yaa ñàkk xam-xam gàtt xel ba tax na nga mën a weddi gént jaar xam ne ndigalu yàlla wala ndigalu yonentu mën na cee jaar léegi bu fekkee ndigalu yàlla mën na jaar ci gént pour rey ab yonentu pour ñu jaaree fa saxal tabaski wala jaaree fa daganal tabaski lan mooy tee ndigalu yàlla mën a jaar ci gént pour joxe wér de tijaan nga xam ne dara nekku ci lu dul astaghfirullah salaatul fatihi laa ilaha illallah lii yëpp nag dama koy wax bu ñu supposé que gént la Cheikhu Tidiane wax te Cheikhu Tidiane waxul loolu waaye bu ñu ko considéré woon sax tasliman jadaliyan mënoo koo dàq bi ci topp mooy bi yonentu yàlla Ibrahim defee li ko yàlla sant lan la ko alxuraan tegal wa naadaynaahu an yaa Ibrahim qad saddaqta ruyaa inna kazalika najzil muhsinin yàlla daal di ko ne ca dëgg-dëgg lañ la santoon def nga ko gëm nga lañ la digaloon kon bu fekkoon yonent yàlla ibrahim yàlla tere dafa nekk ku gàtt xel ku mel ni Mor Kébé dafay xëy rek naan déedéet lii gént la kenn munu cee teg binaa ci diine waaye moom melul noonu moo tax yàlla daal di ko tamponeel que ne ku dëggu ga ku dëggal nga wanaa day naaw an yaa Ibrahim qad saddaqta ruya inna kadalika najzi lmuxsinin donc lii nii xëy na ku gàtt ku ku fanatique mën na wax ne li nga ma fi wax ni yépp yonentu ya jiitu woon la kaaneetil ñun ci suñu sharia ci suñu yonentu boo ñëwee ba ci suñu yonentu bi lan la ko yàlla wax wa is qulna laka inna rabbaka axaata binnaasi wa maa jacalna ruya allati araynaaka illa fitnatan linnaasi wa shajarata almalcuunata fi alquran ba aaya bi jeex yàlla ci boppam wan yonent bi salallahu alayhi wa sallam li nar a xew ginnaawam ak ñi nar a jël nguur gi ginnaawam ak ni nar a foowee héritage am ginnaawam yàlla nettali ko wa iz qulnaa laka inna rabbaka bi binnaasi wa maa na ru'ya lati araynaaka illa fitnatan linnaasi gént gi ma la wan wanu ma la ko lu ngir nangam ak nangam ak nangam ak nangam gi nga xamante ne nangam nañ ko ci alxuraan ak nangam. ak nangam kon yàlla ci boppam wan na yonent bi li nar a xew ginnaawam à travers gént kon dootoo mën a wax nekk gént yi ma fi wax ni yépp ci charia yi ñu jiitu wala ci diine yi ñu jiitu wala concerné wu ñu engagé wu ñu ñun diine sam déedéet ñaareel bi yàlla ci boppam ci yonent bi ba léegi wan na yonent bi tëralinu diine ji ak ay ponk yu am ci diine ji ne dina am lu jiitu muy am te ci gént la ko jaaree لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يا الله سحل ينتبه صلى الله عليه وسلم تجينت لجيت لول دخل كنا دنا ندق مكة دنا نوات سين بوبوي دنا ندف نعم دنا ندف نعم أبيكو أك فتح يا الله دنا لنكم أي مي فتح مكة ولا مي فتح حديبية نكم أنا te loolu ci gént la jaar yonent bi xam ko ci gént balaa muy xew kon jàpp naa ne te lii dama la ko jox xaydun min faydin maanaam un cent wala benn toq pepp puso ci géej ñu doon toog di wax ci gént ci lislaam ak palaasam wallahi alazim aouzu billahi min kalimati ana modestement mën naa la cee defal conférence su cinq heures de temps cinq heures de temps gént ci lislaam palaasam ak li ko boroom xam-xam yi gisee li ci alxuraan wax li ci yonent bi wax li ci nàngam entre parenthèse kenn ci ñu ko doon doon sax dégg naa mu indi ci ne noddu sax ci gént la jógee effectivement noddu bi ngay noddu chaque prière noddu bi ngay def ci gént la jógee léegi bu noddu jógee ci gént lan mooy mën a tee wér la tijaan jógee ci gént lan mooy mën a tee astaghfirullah salaatu ala nabi laa ilaaha illallaah jógee ci gént Mor Kébé nee na nañ ko tëggal débat moom ak Ahmed Khalifa ci téere bu ci téere xadis yi pour mu wane xadis ak ni mu ak ni borom xam-xam yi d' méthodologie yi ñuy bindee xadis nga xamante même orientaliste yi d' accord ci aha deux mille deux ba fii ñu toll jàmbu xeebu bi toog di wax maa lancé woon défi ibaadu Sénégal yépp ne leen ki fi gën a mag ci yéen mooy Ahmed Lo ak Ibrahima Khalil Lo ba ci ñu ci gën a daw. ku ci bëgg ci yéen na ñëw ma laaj ko ñetti laaj ci xam-xamu xadis ñett moom mooy tànn benn bu ci neex bu ko ci neex mu tontu ko benn rek la tànn tontu ko mu bàyyi ñaari bu ci tontoo benn ma dagg sama kurus nekk ibaadu 2016 ba léegi laaj baa ngi taxawal kenn ñemewut a relevé défi bi 2016 ba léegi ñi ma ñi ma daan topp depuis 2016 ci internet bi ci groupe yi xam nañ li may wax 2016 ba léegi léegi Mor Kébé bu fekkee dafa bëgg ku mu débaawal bu fekkee dafa bëgg ku mu débaawal Ahmed Khalifa mën nañ koo noppal parce que kilifa la mag la na ñëw na ñëw man waxuma waxuma sax ay télé xam nga moom télé lay wax wala TFM wala nangam na ñëw place de l'obélisque place de l'obélisque ñu oo télé yi Sénégal yépp ñu ñëw teew ñu ut ku koy àtte muy Cheikh Tidiane bi teew wala ku mënti doon ku xam dara ci diine mu toog suñu diggante man ak moom. mën naa koo may li ko daggee dix heures ci suba ba vingt deux ci guddi fu kon neex nag ci mbiram xadis nañ ci dugg place de l'Obélisque naa ko wax ñu ootele Sénégal donc la défi est accepté bu fekkee d'accord na na jàpp bés li ko daggee suba ci dimanche bi ba ilaa yawmil qiyaamati saa bu bëggee ci moom la des bi ci topp mooy wax ji gën a rëy ji mu wax mooy ne bu dul loolu nañ ko may plateau ci télé yi mu jàngale xam-xamu su wane méthodologie ak nangam ak nangam mais liñ koy tontu fi ñaari mbir la mooy premier bi lu la ko teree def déjà am ngeen ay chaîne YouTube am ngeen ay chaîne télé internet lu leen ko teree def depuis longtemps lu leen ko teree def waaye waaye ñun ñun ñun taalibe sëriñ si taalibe bàyyi Niass si taalibe sëriñ Touba yi taalibe Cheikhu Tidiane yi taalibe si Hadji Malick yi lii dafa war a tax ñu gën a dafa war a tax ñu gën a góorgóorlu ndax kat bu ñu bàyyee plateau tele bi waxkatu looxoor yi nekk fi di wax ay musiba kese di wax ay njaaxum ñii neex làmmiñ ñi dana ñëw nax ñu xamul dara ñi ba gëm loo leen li ñu nekk moom mooy diine te fekk du diine d'où la ñu fexe jug jàngal suñu taalibe yi jàngal suñu mbokk yi teg leen ci yoonu xam-xam wàllu xam-xamu hadis bobu ñom duut seen chasse garde. duut lo xamanteni ñom rek ñoko xam ci senegal di fàttali ne Mor Kébé bu fekkee jàngam sori na ba sori licence la am kese licence kese jàmbu xeebu bi di wax ak yow 148 148 cent lijaasa la am ci walu hadis yow ben lijaasa nga am ci walu hadis jàmbu xeebu bi 148 quarante lijaasa la ci am donc bu len nexé dem len ngeen jangale waye na leen leer ne on vous a dans euh, sous les projecteurs. luuxóor bu ngeen fi wax da ngeen danañu xey suba dajj ko ngeen nekk tum për ci kanamu sénégalais yi def leen loolu seen bopp yi lu ngeen ci wax ci wàllu xadis leen ci nax kenn li ngeen xam nit ñi xam nañ lu ko raw junne yoon la ilaha illallah wa ngeen ngeen ñi yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak Baay yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox leen